ci boobu nga xam ne rek kii di Diary Sow bindal na ko Serigne Mbaye Thiam lan nga ci mën a wax. waaw euh, ginnaaw bu ñu nuyu nuyu euh, waa Equivox TV ak mbokku mhm. moom mooy jamono yi ñu génn dafa meloon ni ñu ci bëri seen euh, bopp tëju woon nañ ci li nga xam gisuñu ko woon. commencé ci ay wéy juróom commencé ci ay mbokkam law ci réew mi law ci àdduna bi yëpp. Euh, ci koo xam ni def na ay résultats yu am solo ci njàngam. Mhm. Euh, wane ci am xarañte bu mat sëkk. alors donc bi ñu ko yóbboo France euh, toog ab diir gisuñu ko. Mhm. ñu ci seen bopp tëju na woon. Mhm. ñenn ñi yaakaaroon ni dundatul sax. xëy na dafa am ku jël bakkanam. ñenn ñi yaakaar ni dafa am ku ko téye ci téye boo xam ni moom àndu ci ak coobareem. alors ñenn ñi tamit yaakaar ni xëy na dafa am fu mu nekk fu ñu gisagul. waaye li leer moom mooy gis nañu lettre boo xam ni démb. Euh, kii di parrain di ministre Serigne Mbaye Thiam génne na ko muy lettre bi nga xam ni euh, jaar yi moom moo ko bind mhm. euh, bu nga xam ni dalal na xelu nit ñi parce que mhm. au moins nit ñi xam ne ni mi ngi dund te moom ci wax na ci leet boobu ne fi mu nekk am na dal mhm. amul kenn koo xam ne ni ngi koy xoxatal wala di ko teg loo xam ne métital la donc fi mu nekk moom moo fa nekk ak teeyu bakkan donc loolu Euh, de toute façon dalal na xelu nit ñi euh, bi nga xam ne moom moo ci des mooy jéggalu na donc jéggalu na euh, ay wéyjuram jéggalu ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi doon am njàqare ci demam ji tamit rafetlu cofeel bi nga xam ne nit ñi am nañ ko ci moom waaye li nga xam ni gis nañ ko ci aussi mu nekk lu am solo mooy moom dafa mel ni dafay waxat ak nit ñi ni dégluwuñ ko donc xëy na koo xam ni yàgg na wax ak waa këram yàgg na wax waa dëkk bi mais déglu wuñ ko. parce que bu ñu fàtte ni bind na téere. Euh, boo xam ni mi ngi wax ni dafa am euh, soxna soo xam ni dafa am yoon bu mu xàlloon bëggu cee jaar. Mm-hmm. mais dafa mel ni dañ koo tere yoon boobu bëgg ko jaaree par la force. beneen yoon boo xam ni nekkul yoon bu mu tàmm. Mm-hmm. donc je crois que loolu aussi. Euh, nga xam ni am na mën nañ ko jàppee comme alerte mën nañ ko jàppee comme loo xam ni. Mm-hmm. nit koo xam ni dafay wax ni dafa bëgg ñu déglu ko. doonte koo xam ni xarañ na lool ci jàng bi. mais bëgg nañu déglu ko. Mm-hmm. Euh, bëgg nañu déglu ko ci moom euh, choix yi nga xam ne moom la def. Mm-hmm. ci yoon yi nga xam ni euh, xalaat na ni foofu la war a jaar te foofu moom mooy gën a indi moom li mu gis lu gën a dëppoo gis-gisu àdduna. Mm-hmm. alors donc loolu nag mu amee appréciation yi mën na mën na wuute. am na ñi nga xam ne dañu jàpp ni waroon na toog fi nga xam ni fa lañ ko tegoon mu continuer njàngam normalement. wéy juri xëy na loolu lañ doon laaj sénégalais yu ci bëri boo gisee aussi tamit. ñu xawoon nañ am njàqare euh, mooy mm-hmm. gisoon nañ ni koo xam ni bu yeggalee formation mm-hmm. ku ñuy am yaakaar la ci réew mi ak ci àdduna bi yëpp alors mais euh, moom euh, jàpp na ni xam na fu muy teg tànkam mm-hmm. am na beneen choix am na beneen yoon bi nga xam ni jaar na fa mais daal encore une fois lépp boo ko gisee mu xaw a indi coow lu bëri mooy njàqare ji mooy mooy yaakaar bi nga xam ne amoon nañ ko trop ci yoon wi nga xam ne yaakaaroon nañ ñi fa la war a jaar mhm. euh, mu mel ni kon euh, moom xale bi dafa tànn beneen yoon mhm. euh, boo xam ni xëy na dina ko leeral parce que kuy bind la parce que mhm. kuy wax la dina leeral yoon bi nga xam ne mooy yoon dëppoo ak gis-gisu am voilà ci noonu rek ci biir lettre bi mu xam le ne dem bi mu dem du benn pression boo xam ne teg nañ ko ci moom waaye bu ñu sukkandikoo ci say wax léegi rek roman boobu nga xam ne bindoon na ko kii di jaari saw da see xamle woon ne rek Euh, mën na dafa bëgg a jël yoon boo xam ne rek boo ko teg yoon bi nga xam ne moom lañ ko tànnal nga yaakaar ne loolu tamit du pression. waaw en fait pression moom nit mu dund te te te du am pression. maintenant pression yi am na pression boo xam ni. Euh, nit ñi ñoo ñu koy teg. mais am na pression bi nga xam ni yow yaa koy teg sa bopp je crois que moom li mu choisir. mooy pression boo xam ne moom moo koy teg boppam. donc mhm. moom mooy choisir yoonam. Mhm. Euh, boo bis boo choisiree sa yoon nag. Mhm. yow ci sa wàll a. dëppoo ak li nga bëgg. Mhm. donc loolu pression la maanaam yow yaa naan man comme tànn naa yoon bi ba ñëpp xam ni yoon bi laa tànn. Mhm. waruma cee juum waruma cee def nii waruma cee et cetera bu boobaa yow pression bi yow yaa ko teg sa bopp. Mhm. donc je je crois que li nga xam ne moom moo ci am solo. moom mooy que mu nekk yoon boo xam ni euh, moom dina ci gis boppam. mu nekk yoon boo xam ne ay mbokkam. Euh, ak pénc bi yëpp. dinañ ci gis seen bopp. mu nekk yoon boo xam ni du sore. ak ñun suñu gis-gisu àdduna mm-hmm. maanaam suñu aada suñu mm-hmm. cosaan suñu charte ñi ñuy doxalee suñu réew mm-hmm. je crois que loolu dafa am solo xam nga nag dafa am loo xam ne il faut ñu leeral ko euh, gis nga ñi nga xam ne ay génie lañu euh, ñi nga xam ni seen xam-xam dafa sori trop yenn saa yi dañu tegu ci loo xam ni ñun ñi nga xam ne dafa am fu ñu toll il faut ñu dem ba fenn fa ñuy soog a comprendre donc man euh, pour dalal samay xel damay classé jaar yi ci ñooñu maanaam ci ñi tuddee ay génie maanaam génie moom des fois pour nga respecté loo ko yoon boo xam ne xàll nga ko ni ko fii ngay jaar dafay xaw a parce que moom dafay soxla di jaar ci yoon yi nga xam ne fa lay jaar pour yegg fa mu bëgg a yegg ci xel ci xam-xam donc loolu la ñuy yaakaar ni ci loolu la xale bu jigéen bi tegu donc am na ci yoon bi nga xam ni moom la xàll xëy bu ñu demee ba ci kanam dinañu gën a comprendre lu mu doon euh, te comme ni ma ko waxee encore une fois pour wax la je dina bind euh, te dina euh, nit ñi ci yoon bi nga xam ni moom la moom la nekk bon maintenant en attendant luy jur yi seen bopp dinañ tëju euh, ñu ci bëri duñu comprendre pour le moment parce que li ñu gis mooy xale boo xam ni euh, ëllëgëm leeroon na nañ dem nañu ba Sénégal ñaari at concours général loo fi teg mu jël ko euh, macha allah nekk koo xam ne yóbbu nañ ko lycée Louis le Grand mu nekk bërëb boo xam ni borom xam-xam yu mag yu ñu ràññee lu ci àdduna bi wax ma la France kese mhm. leen formé donc yaakaar Euh, yaakaar bi ne bu kenn jàpp ni tas na. Uh-huh. donc nañu jàpp rek ne euh, xale bi am na yoon bi nga xam ne tànn nañ ko li ñuy ñaan rek mooy yoon boobu dëppoo ak suñu aada suñu uh-huh. cosaan ak suñu ay charte mu nekk yoon boo xam ne a dëng uh-huh. mais mu nekk yoon boo xam ni euh, moom dina ci gis boppam mu nekk yoonu xam-xam wala yoon bu mu mënti doon mais man li ma gis mooy jeunes yi la boo xam ni bëgg koo tëj bëgg koo tënk ci fenn foo xam ne moom giseewul noonu dafay xaw a jafe yoon bi bañ a dëng ba tey rek jàngat yi ci nit ñi def bëri na Diary Sow nit dong la bien vrai que nag c'est un génie la ci li nga xam ne rek euh, ci la nekk waaye ñu bëri yaakaaroon na rek Diary dafa génn ngir a dem divertiru soit dem làqatu fenn rek coow li daal di juddu ci nag mu dem ba ëpp ko loxo moo tax mu bind lettre bi mu bind Serigne Mbaye Thiam loolu lan nga ci mën a wax. waaw xam nga euh, nit ñi ñoom des fois bu ñuy expliquer dañuy jël explication bi nga xam ni moo gën a moo gën a simple rek. Mhm. bon parce que situation yu mel nii xale bu jigéen. Mhm. Euh, boo xam ni da koy yabal France pour mu dem jàngi. nga mhm. jékki-jékki gisatoo ko jamono jooju tomboog tombeek ay fête. ci bëri dañu ni dafay dem foofu yi rek parce que explication boobu. mooy explication bi gën a yomb mooy explication bi gën a jege. mais je crois que aussi nit bu fekkee ni da ngay expliquer da xool lépp doo doo xool benn affaire kese bo mhm, mhm. boo boo xoolee lépp dangay gis ni koo xam ni euh, ku mës a yaru la euh, mhm. ku mës a déggal ay wéejuram la ku nangoo jàng la ku nangoo liggéey la euh, ku nangoo xeeñtu xam-xam la loolu yëpp doo jël benn bis rek benn affaire am nga bëgg a sànni loolu yëpp jël bi gën a jege rek maanaam dafa dafa dem di fooy topp nafsam donc je crois que euh, loolu mën na nekk euh, faxasuñ ko. Mhm. mais man ni ma yaakaar mooy ci koo xam ne àddunaam yëpp dafa am yoon bu mu jaar. Mhm. te ba pare nag mu continuer di wax ak nit ñi. Mhm. mën nañu yaakaar ni dinañu gën a jindi quoi. Euh, donc man dama yaakaar ni. Euh, koo xam ni la xëy na fi ñu ko bëgg a jaarale moom gisu fa boppam. Mhm. donc koo xam ne euh, xëy na am na beneen yoon boo xam ni yaakaar na ni ci lay gën a mën a exprimer génieem te loolu mhm. encore une fois xam naa ni dina ko wax. Mhm. Euh, parce que encore une fois kuy bind la. mais dañu nekk ci réew moo xam ni. yenn saa yi explication yu gën a yomb moom la yi di jël. te explication yi nga xam ni moo gën a ñaaw des fois moom la ñuy jël. donc loolu aussi nekkul lu baax. je crois donc je crois que li nga xam ni moom moo gën. moom mooy euh, ñu ñu teey rek ñun ñëpp. Mhm. Euh, parce que encore une fois bu ñu fàtte ci njaboot ji mu bokk. ba léegi ñooñu ci mhm. njàqare la ñu nekk. donc waruñu nekk ñëw di ci yokk beneen njàqare euh, di wax loo xam ni Euh, yenn saa yi du doon lu ñu leer trop. Mhm. Euh, nañ ci am yaakaar. je que am ci yaakaar mooy yaakaar bi nga xam ni mooy yaakaar bi gën a rafet. Mhm. ni gone goo xam ni ci jàng la a nekk ci déggal ay waajuram la mës nekk. Mhm. Euh, ci yoonu jub la mës a nekk. donc nañu yaakaar ni rek ne am na ci lu muy lijjanti loo xam ni dina ko leeral. te lu muy lijjanti. du sori ñun yaakaar bi ñu amoon ci moom. donc du nekk ci yoon boo xam ne dafay wàcc wala yoon boo xam ne dafay dëng. voilà ba tey rek ci dégg-dégg yi nga xam ne dañ koy for rek ci mbedd mi ñenn di xamal ne rek mbir mi affaire état la ndaxte lettre bi bu muy génn pourquoi pas jaari euh, choisirul sa famille au lieu de euh, Serigne Mbaye Thiam waaw mais Serigne Mbaye Thiam ci famille bi la bokk parce que bu ñu fàtte ne euh, même moom. ñaari mbir wane nañ ci famille bi la bokk wala ñett. d'abord parce que parrain am la. Euh, te loolu ñëpp xam nañ ko xam nga boo suñu suñu suñu aada ak suñu cosaan. Euh, ñun dañoo mës nangu ne baay nekkul kese baay bi la jur. ndey nekkul kese ndey bi la jur. donc loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo dañu xam nañu bàyyele xam nañu le donc Serigne Mbacké Thiam bàyyi la ci xale donc loolu nekk na lu am solo bi ci des. moom mooy boo dee xool xale bi euh, ton oncle la koy wax ci lettre bi. Mhm. donc oncle nag euh, bàyyi la ñu tubaab parce que tubaab. Mhm. Euh, xamul nijaay. Mhm. moom moom moom oncle lay wax. xamul baay bu ndaw oncle lay wax. donc moom mi ngi koy tuddee baay ci ci lettre bi. ba pare ci lettre bi. bu fekkee ni ñenn ñi dañuy làkk tubaab. vous voyez woo ko da koy tutoyer. tuy la koy wax loolu yëpp dafay wane ci biir mbokk la. donc je crois que bu ñu fàtte loolu euh, yónnee wu ko état. Mhm. baayam la ko yónnee. Mhm. te baay jooju nekk Serigne mbay Thiam. Mhm. Euh, je crois que loolu aussi lu lu am solo la. Euh, je crois encore une fois kuy wanee ni moom ku fonk ku fonk kilifteef la ba léegi. donc parce que mi ngi wax ak baayam. ba pare mi ngi tuub di jéggalu. di wax ni moom mi ngi jéggalu. njàqare bi nga xam ni teg na ko nit ñi. waaye nag. am na ay yenn signaux yu mu joxe woon. Mhm. yuy xaw a wane ni rek. Mhm. ni moom faatuwul. Mhm. Euh, mi ngi dund ba léegi. donc bàyyi na ay indice loolu ñu koy bind ci lettre yi. yoo xam ne bu ñu ko xawoon a moo tax may yaakaar ni ba léegi rek. macha allah ab génie moom mooy wax. voilà moom moo moo moom moo am tëralin moom moo am yoon bi nga xam ne moom lay jaar. Euh, donc je crois que tey jii daal li ñu mën a jàpp. moom mooy ñun ñëpp suñu mbokk la. ñii seen rakk la ñii seen jarbaat la ñii seen doom la ñun ñëpp suñu mbokk doomu Sénégal la. Euh, boo xam ni euh, am nañu yaakaar ci moom mhm. yaakaar bi euh, yàlla bu mu tas mu mhm. ngi nekk foofu mhm. na ñu ñaan yàlla rek mu nekk ci yoon boo xam ni yoon bu koy jik la moom jik ko ay mbokk jik ay mbokkam jik réew mi jik jik àdduna bi yépp parce que yaakaar boobu la ñu am ci moom d'accord professeur ñàkkul peut-être jaare dina seetaan interview bi ñu lay wax rek ban message message nga ko mën a lancer waaw euh, bu fekkee ne man euh, dama doon wax ak jaar euh, Diary mhm. damay xaar mu gën a leeral mhm. d'abord bokku mhm. njaboot ji muy ndeyam bi nga xam ne mi ngi maliku ak baayam bi nga xam ne moom mooy Serigne Mbaye Thiam gën a leeral ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi ak africain yi ak àdduna bi yëpp nga xam ne dañu am cofeel ci moom te moo ko ji ci nit ñi cofeel boobu bu mu dañ te li nga xam ne moom moo tax du dañ mooy ñu bañ a réeroo euh, mu bañ a indi benn xalaat bu ñaaw euh, mhm. comme ni ñu ko waxee léegi am na ñenn ñoo xam ni peut-être mën nañu am xalaat bu ñaaw nit nag moom moo demee noonu c'est-à-dire que nit Euh, mën nga def ci moom lu rafet. Mhm. di def ci moom lu lu lu benn affaire am rek mu bëgg a jël mhm. lépp. daal di mhm. koy sànni fële jàpp lu ñaaw li nit moom moo mel noonu. mais je crois que ñu ci bëri ñu ngi continuer di garder seen yaakaar boobu. Euh, jàpp ni gone goo xam ni jàng rek ci la ne. Euh, góorgóorlu ci la ne. siggil ay wéjuram siggil ay réewam ci la nekk. mu bañ a nekk sas encore une fois bu ñu teg ci benn xale mu mu jàpp ni dañ koo teg benn sas bu metti boo xam ne attanu ko attanu ko. Euh, moom mooy tànn yoonam bi nga xam ni jàpp na ni euh, gis-gisu àddunaam moom moo gën a dëppoog loola mhm. mais encore une fois euh, moom jaar yi ñu jàpp ni yoon boobu day nekk yoon bu nga xam ne mooy li gën mhm. ci moom mhm. yoon bi gën pour ay wéejuram yoon bi gën pour àdduna bi yépp je crois que ci loolu la la la nekk ci lu gaaw xëy na dina ci lu dul yàgg dina dina dina leeral loolu ay bokkam dina ko leeral waa Sénégal dina ko leeral àdduna bi yëpp. d'accord professeur yaakaar naa ne lépp leer na lan mooy sa dernier mot. bon sama dernier moom mooy euh, féliciter leen ci euh, ci liggéey bi nga xam ni moom ngeen di def. Euh, mhm. ñaan yàlla jàmm am Sénégal. Mhm. coronavirus bi jóge fi. jóge ci Afrique jóge ci àdduna bi yépp. yàlla def ñu ñu delluwaat ci suñu ay activité mhm. mais yàlla def aussi ba nit ñi. gën a bëggante ci seen biir. je crois que loolu lu am importance la démb damay déglu. Euh, benn waay bu tudd Korom ak Faye mhm. muy wax ne euh, bu ñu bëggee virus bi jóge fii il faut ñu xoolaat suñu xol yi mhm. mais loolu sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh yàlla yàlla yokk leeram te yóbbu ko na mhm. euh, daf ko doon wax bu yàgg yàgg yàgg ni mhm. dañu war a gën a boole xool yi mhm. boo xoolee ci affaire u yi Sow bi bëri nañ ñoo xam ni vraiment dañ ko jàpp comme seen doom ñi jàpp ko comme seen jarbaat ñi jàpp ko comme seen rak ñi jàpp ko comme seen sët je que loolu moom moo ëpp solo ñenn ñi nag euh, malheureusement ñu ciy génnee ay affaires yoo xam ni ñuul ñuul la ci biir soow bi je crois que mën nañu gën di rafetal rek euh, te rafetal bi nag ñu bañ cee naïf aussi rafetal na ne signifie pas que nga naïf jàpp ne rek da ngay topp sa xol rek fu mu lay jëmale nga jëm fa déedéet du loolu mais nañu xool li nga xam ni moom moo gën a rafet nañu xool nga xam ni moom moo gën a jekk parce que loolu moom mooy defar pénc loolu moo am solo ci suñu diggante di leen ci gërëm di leen ci félicité parce que euh, gis nañ ni ci tànk boobu yéen ngeen di dox bis bu nekk te tànk boobu moom mooy jëmale am réew kanam ñu ngi lay jaajëfal bu baax